ñu mbokk euh, reporter yi journalistes yi ñoo couvrir campagne bi c'est une première ñu am campagne durant Ramadan weeru koor ñu tàmbali démb suñu confrère réew mi ñu ngi lay nuyu yaa ngi ci caravane bi depuis démb tey ñu tàmbali aussi ci weeru koor ah, en tant que reporter nan ngeen di dundee tey événement bi. waaw jërëjëf confrère euh, campagne ci weeru koor moom wax dëgg yàlla neexul. parce que ku nekk xam na ne weeru koor boo liggéeyul rek boo liggéeyul sax dafa metti ndax xiif ak mar rek dafa metti waxtuma laa nga nekk ci naaj bu tàng bi di campagne vraiment loolu lu jafe la mais on va faire avec euh, li tax ñuy def euh, li tax ñuy defati avec parce que suñu liggéey la te ku nekk xam na liggéey reporter dafa metti waaye daal de toute façon daal euh, on s'accroche te dañuy dem jusqu'au bout ba mu jeex daal dem ba ngeer daal comme ni ñu ko waxee rek dem ba ngeer kon euh, donc ah, gis na euh, euh, confrères yi journalistes yi yaa ngi fi ci caravane bi ah, daanaka ak weeru koor gis na mbooloo romb rek gis na mbooloo mi mi ngi noonu waaw dañuy génn si balcon yi seen bunt yi si terrasse yi génn gis ngeen mag ndaw góor ak jigéen gis yaa ngi noonu gaa ngi noonu gis Hein, la caravane de la coalition du Moyen Président, la caravane de Mimi Touré, n'est superviseur de cette euh, coalition qui dit aussi mon euh, Girassi, n'est directeur de campagne, qui dit Lamine Diante Bok, la coalition qui dit Abdourahman Diouf, qui dit Serigne nekk ci coalition qui dit di Mary nous Niane ñoo la coalition du maire Président comme donc les leaders les militants hein, de Dakar de Pikine Rufisque fas yéene fekk waa Rufisque suñu internet Rufisque Sira Cissé ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom mi ngi ne tey Pikine dina jël raw gàddu gi ndax mbooloo bi mobilisation bi Rufisque moo koy gagné gannaaw parcelle bu ñu defee seen démonstration de force gannaaw Pikine Dalifort aussi gannaaw Rail Sud Thiaroye Sicap Mbao Sicap Mbao Diamaguène Guissène

muy sala du dara nee naa ngi fecc doon Sonko kam, ñu kam, kam, Sangalkam waa sangal kam, nañ sangal kam waa gis ngeen di sana. Seno asangal kam. Anche bundi kare. Yani kamyon burung verip diye Diomaye Faye Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko si askanu Sangalkam dinañu accueillir lii di caravane bi seen seen waa Sangalkam ñoo génn noonu di accueillir la caravane de la coalition Diomaye président sen. Ya sen Sen. Sen. Sen. Sen. ca Dakar Sen. sen Sen. sen Sen. Sen. Sen. caravane eh, Sen. Sen. Sen. seeni koñ à Sangalkam, euh, la caravane de la coalition de mes présents, Mingifi, euh, Sangalkam. Euh, donc, nous sommes Nous

ngeen ni oto yi di euh, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, dans cette campagne électorale qu'est-ce qui est en train de se passer euh, dans cette campagne électorale li wóor ba wóor mooy internet yi ñu ngi gën a xel ñu ngi leen di jaajëfal Daouda Djigal mon ami mon frère mon confrère je sais que ça bopp mi ngi metti <laughs> voilà sànq yaa ngi doon wax lu important ci protocole yi mais je pense que bu ñu laajee Sonko dafa ne Pastef Pastef dafa di lo xamantene continuité la mu ne projet la té projet bi bu fekkente ne du ki ki la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye moy ko koo xamante ne tey il était à côté de Sonko jusqu'à ce que lu ko dal mu dal ko mais néanmoins Sonko ba léegi nii nee na moom la mom la patriote ci néna mom la mom la effectivement donc mu nekk ay carte yo xamantene sama confrère euh, confrères euh, donc cette campagne électorale est en train de faire euh, volte-face si weeru koor lañ nekk mais gis ngeen ambiance bi nga xamante Mon moom fi donc dañuy nouveau, ba tey ànd ak yéen tout au long de la journée accompagnez-les tout au long de cette belle